asalaamaaleykum soxna ci ziar na la. delo ziar bu baax. tour bi naka la. Mariama Koli. ya ngi seetaan série sénégalaise yi. bon je suis pas trop télé mais bon amna yo xamanteni ma ngi maa ngi comme Pod et chou parfois Wiri Wiri et autres. yow ban série nga gis ne jamono ñu mi ngi def buzz Sénégal. Euh, instant bi je pense Pod et chou ya ban moy sa série préférée ci série yooyu yëpp. ci série yooyu yëpp. am aw ma exactement bon mënuma wax bi la parce que je suis parce que yenn yi day rapporter fii xam nga des conseils et autres. mais est-ce que gis nga ne série sénégalaise yi ñoom ñi ngi yeete. waaw benn côté waaw mais beneen côté déedéet xam nga y a toujours un oui et un non. léegi boo amoon looy dénoncer ci série yi lan lay doon. Euh, pour ñu bàyyi xel bu baax ni jeunesse sénégalaise bi dañ leen di suivre et que ay références lañu. Euh, ñu xool euh, impact négatif euh, ci ci ci société bi ñu bañ di ko def daal. yow tey kan mooy ci kan mooy sa acteur préféré ci série yi. sama acteur préféré <laughs> loolu dina métti wax de. mais am nga kenn koo xam ne yaa ngi koy suivre au moins neex na la quand même. instant bi bon xaaral ma wax pod rek comme mooy fan si xale yu jigéen nii instant bi <laughs> yow ya, lan mo la wara neex ci pot ba nga ba nga choisir pot. parce que pot dafa osé ak ay ñett jabaram. tey ba amone lay conseiller pot wala lo koy wax lan lay doon. mu wañi bëgg jigen kon yaakaar naa ne pot dina la dégg bu baax té dina baye xel ci li nga wax. inshallah jaajeufal nañ. merci beaucoup. ak nekkal di jàmm. tour bi naka la. Modou la ñu gën ko xam ci Tidiane. ne di nga sétane série sénégalaise. waaw waaw waaw si. Ya ban série ngay gëna sétane seetaan. Euh, wiri wiri côté maraîcher tey série yooyu est-ce que yaa ngi gis na ñu ngi yeete waaw si si waaw ñu ñu yeete am na solo yow ban ma ci sa série préférée non Pod et Marichou neex na ma trop yow lan moo la neex ci Pod et lan moo tax nga tànn Pod et Marichou non mais yi ñuy dafa am solo quoi Wah esa bi moom li xew ci dëkk bi rek la ñuy suyee ñoom waaw mën nañ laa yee ci lu bari kan moo ci sa acteur wala actrice préférée xanaa Oh, ya daal lan moo tax pourquoi Momo. moom moom moo ma ciy daaneel moom moom mooy loolu. lan moo tax nga tànn Momo. non moom dama cee gën a neex quoi ci li muy suyee. ah mais xëy na am na lu mu def loo xam ne tey jii li tax ti. def moom daf maa neex moom moom moom lu mu def neex na mo. mais ya daal lu Momo def rek neex waaw gis nga. tey boo amoon looy wax Momo lan lay doon boo yóbbante boo koy yóbbante. mais mu gën a góorgóorlu rek. xam ne moom mooy loolu Sénégal moom dafa metti il faut boo bëggee dem da ngay jëlale lu bari dina bari baat ci ginnaaw mais nag muñ rek waaw artiste moom dafa son yaa ma gën a xam waaw. jaajëfal nañ la Tidiane. waa ok merci. asalaamaaleykum sëñ bi ziar naa waaw ñu ngi lay ziar yow tamit soxna si. sëñ bi tur bi naka la. tur bi maa ngi tudd Aba Sénégal moom lañ ma xamee ci foire bi ñëpp di ma wooyee Sénégal rek. Sénégal gannaaw nee nga yaay Sénégal <laughs> di nga seetaan série sénégalaise yi. série sénégalaise yi franchement bëriwuma ci lu ma ci seetaan. mais nga yoo ci xam quand benn bi daal bi ñu indaatee sumbul mu ñëwaat daal ca laa ko bàyyi parce que mun ma conserver ñu concentré wu ci benn. affaire ba ñëpp di ko ñu ñu ne ñu dafa tëddoon dans le comment benn six mois après ñu indiwaat loolu franchement comprendre moo te yow boo amoon loo leen di dénoncer ci loolu ñu def lan lay doon. non li ma leen ci dénoncer mooy benn benn benn benn affaire rek ci laay wax muy ci diggante euh, le gala Jojo mu xam ni mu xam ni amul lu gën a foor yaay quoi mu gën a xam loolu mu xam ni amul lu gën a foor yaay nu mu mënta mel yaay la waaw. yow daal conseil boobu ngay jox ci laa koy bon xam naa ne nag ci théâtre la quoi mais loolu pour nit ñi seetaan ñu xamante ni bii amul lu gën a foor ndey ak baay parent munoo bon man sax euh, du ma wax parce que waaw mais papa ak yaay kenn mun leen fay ci àddina waaw. papa ak yaay daal yow daal noonu nga ko gisee kenn mun leen fay il faut nit ñi xam loolu ndax muloo bari la bari la bari te imagine toi nga yor teraanga ànd na gudul jeex di fay ay nit. mais boo gisoo gisoo sa yaay gisoo sa papa loolu perte la dëgg la nag yàlla mooy rey dëgg la mais boo ko amee fonk ko bu baax balaa mu fiy jógee ngay sonn. gëm naa ne sénégalais dinañ bàyyi xel ci sa message Jojo dina bàyyi sa xel ci sa. waaw ba tey ku ci bàyyi xel tamit bàyyi nga nga toogaat tam nga xalaat ci bu baax a baax quoi parce que euh, Sénégal ñu ñëpp ko moom jàmm daal ci laay gën a ñaan ci réew mi jàmm comme euh, l'avait chanté Julien Jouga jàmm ju mat sëkk moom la ñu ñaan ci réew mi. jaajëfal nañ jaajëfal na si ziar naa la fay naa la tur bi naka la Joséphine yow yaa ngi seetaan série sénégalaise yi Joséphine waaw yow ban série mooy sa série préférée Pod et Marichou Pod et yow lan nga ñu mun a wax ci Pod et Marichou ah neex na daal tamit <laughs> tey ci biir Pod et Marichou kan moo ci sa acteur wala actrice préférée ah, Billy ak Marichou. Billy tey boo amoon looy wax Billy ak Marichou lan lay doon. ah ñu gën a yokk seen loxo rek. jaajëfal nañ la. merci. soxna si nuyu naa la. maa lay fay. tur bi naka la. man Binta laa tudd. di nga seetaan série sénégalaise yi. waaw damay seetaan série sénégalaise yi. ban série nga ciy seetaan. man dinaa seetaan Pod et Marichou damay seetaan Mbettel damay seetaan Wiiri Wiiri waa ay ñoomin kii nu tuddati jiixi jaaxa. yooyu noonu yëpp dama koy seetaan. yow ci série yi nga fi lim yëpp man ma man man ma ci sa série préférée. man daal sama série préférée euh, Pod et Marichou la. pourquoi pot et Marichou. waa parce que Pod et Marichou xam nga instant bi dañoo nekk ci ñun ay jeunes lañ ñun ñëpp te ñoom dañuy relater li nga xamante ne jeunes yi noonu la ñuy dundee ci seen sëy yi ñuy door a dugg ci sëy yi li ñuy dund ak ñi nga xamante ne waa xam nga rek. série yi série série boobu moom yi ñu ciy yi ñu ciy wax bëri na thème yi ci nekk bëri na. kon jàpp nga ne daal ñi ngi ñi ngi yeete. waaw ñu ngi yeete bu baax. lan ngay wax ne ñi nga xam ne dañ nañ série Pod et Marichou day yàq xale yi. man gisuma ne Pod et Marichou yàq xale yi au contraire li jeunes yi di def rek la ñuy wax xëy na li leen di dénigré moo tax ñu naan non dañ leen di yàq ak yooyu mais man gisuma lool pour man au contraire dañuy yee parent yi di leen wax carrément lan la seen xale yi di def. ci biir série Pod et Marichou kan moo ciy sa acteur wala sa actrice principale. man Marichou laa bëgg ndànk ci sama biir. Marichou pourquoi Marichou tamit. <laughs> man daal Marichou laa bëgg ndax xale bi li muy dafa garaaw daa comprendre jëkkëram waaw moom dara dara fokkul ay bëtam lu ñëw rek. ku ñëw fa nga koy fekk te booy dem bàyyi ko fa foofa toj. kon naa xale jigéen nañu roy ci Marichou. waaw loolooy dëgg. boo amoon message booy lancé ci ban message lay doon. waaw damay wax Marichou na continuer muy def rek. waaw na continuer na jàpp te a bàyyi parce que des fois boo nekkee ci milieu ñi dañ lay bëgg ñi bañ la waaye yow yaay xool rek bul bul xool ñi nga xamante ne ñoo la bañ da ngay xool ci ñi la bëgg ngay avancer parce que même donte benn la am na ku ko bëgg kon na continuer day baax. yaakaar naa ne Marichou dina dégg sa message jaajëfal nañ la Binta. ok jërëjëf merci beaucoup. soxna nekkal ci jaaw ok allez au